مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير Diva One TV La lumière de la Tijania Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu xanaa nu nuyu leen ziyaare leen bal leen xaq balu leen tabaarakallaahu ñaan yàlla yàlla boole nu jéggal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Seydi Ababacar Sy ah wax dëgg yàlla eh, laaj bi ngeen laaj te mooy risaala yonent bi sallallahu alayhi wa mooy benn si ñetti dimension yi yonent bi sallallahu alayhi wa am te Serigne Cheikh Tidiane si jàngaloon nu ko waaw moo ñuy jàngaloon quelles sont les trois dimensions du prophète waaw interprété ko selon enseignement Cheikh Seyd El Hadji si radiallahu taala anhu waaw mu ne bi ñetti dimension yooyu la am sa dimension lumière waaw moy mooy Muhammad Nuurullah muhammad abdullah muhammad rasulullah defe naa sunu euh, euh, événement bi passé noo ngi waxoon ci nuuraaniya gi te mooy muhammad en tant que tey ngeen ne nanu wax ci muhammad rasulullah te mooy risaala sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moo waral gàmmu nag euh, risaala gi nag du ñu ci sonn dañ ko laaj Serigne Cheikh Tidiane si lan mooy risaala yonent gi waaw risaala yonent bi te mooy yónnante bi waaw gi ak yonent bi ñaari mbir la yu bokkul waaw yonnen bi moom lañu jox yónnante gi yónnante gi mooy liñ ko yónni pour mu teg tekk sunuy loxo en tant que ummatu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu laajee sëriñ Cheikh Tidiane si nag lan mooy risaala yonente bi mu ne risaala yonente bi daal mooy e, yéwenug dund goo xam ne yërmande yàlla moo ko sàkku waaw e, dund rek doy na waaw waaye yéwenug dund gu yërmande yàlla sàkku ah c'est fort kon nga yëg ne yàlla ak yàllaam yónniwul yonent bi mais yërmandeem moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñëw articulé ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan للعالمين دمليون إلا رحمة للعالمين سكما أم سفما أم سنوما أم عالم بيب دوغ رسالة بايول فن وكافة للناس سي بنت moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla yónni kon risalatu gaa ngi noonu mais kooku si dimension l'islam bi mais bu dee si dimension tarixa bi Cheikh na Ahmada Tijani eh, dafa julli yoor yoor bi muy pare maamam di muhammadu rasulullah ñëw gane si ko si waxtaan wa ñu def cheikh ni maamam dama bëgg nga wax ma noo mel xaqiqatan noo mel yenente bi ne cheikh nima neema rek ayni rahmati ayni rahmati rabbaniyati kon motax من إملاخ سيد الوجود وعلم شهور سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم توجور نغن دغ مولايا المرحوم سري عبد يالله يالله دولي ليرم مو دان naan jawharatul kamal salaatul fatihi yonent cheikh nee na noonu rek laa si jotee mu jóge min hadratil qudsiya waaw maktubat maktubatan bi xalami kudrati pili mu kàttanu yàlla gi moo ko bind fii safihati nuraaniya si page leer waaw mu ne nag man xarra aha ci dooley salaatul fatiha képp ku ko jàng marratan waahida donte ben yoon la wala mu yedd xulil jannate te dugguloo aljana cheikh nee na fal yaddib nii na nga ma poñe bay na yaddillah kon c'est fort salatul fa ay li nu am waaw jawharatul kamal nag cheikh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko dicté kon salatul fa ñaari perle yooyu salatul fatiha bi directement si hadratul xudsi la jóge ñëw ci cheikh na ahmad tijani mais jawharatul kamal a été dicté par le sceau des te mooy Muhammadu Rasulullah ak kii Abil Abbasi Ahmad Tijani waaw mu ne ko kon neema rek aynu rahmati waaw yaay yaay jëmmi yërmande waaw waaye arrabbaniya waaw kon li mu wax ne yéwénug dund goo xam ne yërmande yàlla moo ko sàkku mooy arrabbaniya mu teg sa ne al yaquutatil jawharatul kamal waaw mutaxaqiqatil waaw yaquutatul xaqaaiq mooy mooy mooy tout ce qui est antimatière par excellence voilà waaw mooy antimatière par excellence al yaquutatil mutaxaqiqatil waaye nag xaaitati bi markazil fuhumi wal maani markazil fuhumi wal maani gis nga science dugg la compréhension dugg euh, li euh, xeeti xam-xam yëpp dugg intelligence dugg li naturel dugg li artificiel dugg waaw lépp luy nature dugg waaw fa kon Euh, nga gis ne gudd gàtt gudd gàtt gudd gàtt buñ ko doon résumé risaala yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi noonu bu dee bu dee bu dee bu dee détaillé wuñu waaw aynu rahmati rabbaniyati moo tax yàlla àdduna euh, bi nu nekk yàlla doxalu fi ak yàllam waaw yàlla ga ma ko doxale fële nu jëm ëllëg yàlla na yeex waaw waaye fii yàlla doxalu fi ak yàllaam ndax day neex tey suba mu naqari waaye ëllëg day day neex ba faw moo tax ñaara fa am tedd ba faw wala torox ba faw safara boo fu diggee dangay gën di torox aljana boo fu duggee dangay gën di tedd feebar amu fa wér di amu fa ñàkk dépense amu fa fii nag yàlla doxalu fi ak yàlla nguuram la fi doxal te nag manam gouvernement am la fi doxal motax tax ngay gis ku am gis ku ñak gis ku wër gis ku wérit gis ku man tay suba mu télé parce que yalla doxalu fi ak yalla mais nguuram la fi doxal waaw té nguur nak <coughs> wax yalla da fay and ak ay tendance fay and ak ay opposition fay and ak ay cause motax moo Serigne Cheikh Tidiane si cause yoy motax mu né fi ñu ne no ngi ci alamul asbab, motax moo ñoom toujours si asbaab yi la ñuy dem moo tax mu ne balaa ngaa dem si maqaadir yi waaw nga njëkke si asbaab yi parce que alamul asbaab la ñu ne lenn lu nekk yàlla def koy utal sabab moo tax nangu nga xëy xëy rek bàyyi fi asbaab dem ci maqaadir yi waaw ñu nangu it nga bàyyi fi euh, jamaayaat yi dem ci xuddu siyaat yi ndax euh, ki faible dañ ne nitu yàlla bi am faiblesse rek mooy xëy xëy bàyyi fi bàyyi fi asbaab yi dem ci maxaadir yi te jëfe na si benn exemple moom Serigne Cheikh Tidiane si radiyallahu taala anhu dafa am benn benn benn xale bu nekkoon nag moom Serigne Cheikh doon ko servir à l'époque xale bi bu nekkul di servir Serigne Cheikh Tidiane si kafe wala mu koy rendre benn service bu mu mën a doon mi ngi ci tuuru yàllaam mi ngi ci kurusam mi ngi ci julleem mu ngi ci awraatam mi ngi ci tuuri yàllaam waaw ainsi de suite ainsi de suite loolu donc ñaari ñaari activité yooyu rek la amoon servir Serigne Cheikh wala nekk si yàllaam ndeysaan mu jékki-jékki bis rek daal di daanu feebar bi mu daanoo feebar Serigne Cheikh Tidiane si yéen yóbbu hôpital bi mu yóbboo hôpital ñu xool ko ni ko euh, dafa manqué ay nelaw manam dafa manqué nelaw liko dal dara faju ko mu wara nelaw te nelaw yi duñu ko duñu ko jox comprimé parce que warta don nelaw yu artificiel mais nelaw yu naturel la wara don ndaysan mu jaral ko mom Serigne Tidiane dépêché ay médecins médecins ils ont trouvé la même chose ñu ne xale bi dafa manqué nelaw il faut mu nelaw sinon rek seen yaakaar jeex na si moom te nelaw yi warta nekk nelaw yu artificielle bi ñu defee seeni i débat dépp ba mënatuñu waaw ndeysaan Serigne Cheikh Tidiane si li leen yéem mooy Serigne Cheikh mi ngi tiim le jeune garson sol costume am comme nii ok waaw euh, ndeysaan di yëy chingomam mais tubaab li leen yéem mooy Serigne Cheikh kii tëdd ni mu chéré ci moom ak situation bi mu nekk mu tiim ko sol costume am di yëy shingamam ba pare di reetaan boobu courage waaw dal na ma ci sëriñ Abdou keroog bi sëriñ Mansour borom daara ji radiyallahu taala anhu wàcce yéen mu guddi gàmmu abraar noo ngi si moom ci kaw ñu yëg nouvelle bi fi ñu ne ci salle bi jaabante bi sëñ Pam Mam Malick bu sëñ Mansour ñëw dugg tuuti Seydi Jamil bu sëñ Mansour ba pare ñu dem ba trois heures di matin sëriñ Abdou génnul néeg bi te nun nu ngi si salle bi te jot nañu information bi maa ngi ànd ak Ahmed Jaxate waaw ak ñoom Souleymane Diouf ñoom ëmma annoncé ma ko ndeysaan jooy fa jooy yu métti ni ma dañ ne sëriñ Mansour moo wàññeeku ma ne sëriñ Mansour ne ndeysaan tuuti rek ñu toog rek sëriñ Abdou ne tël ndaag ndaagu kanaaraam boobu ndeysaan jiitu nu topp si gannaawam mu nuyonteeg nun jàmmanteeg nun ma ne yi lii affaire bi amul parce que bu amoon dina feeñ tuuti si kanamu Serigne Abdou ñu wàcc ànd ak moom dem si tànt bi mu ñëw toog maa ngi toog si ay tànkam jàkkaarloo moom di ko xool mu waxtaan waxtaan bi ba waxtaan bi bëgg a jeex gisoo benn yoon ci kanamam walla si kàddoom lu lay wan

ci xarfa xuufa yeeg bagage yeeg ñoom seen waaw mais mu ne bàyyi leen max moom mu bàyyi jeune garçon bi fi mu tëdd moom Serigne Cheikh Tidiane si mu dem uti ji benn magnétophone bu ndaw daal di uti benn kasetu sa Brown ñëw dugal kaset bi taal magnétophone bi teg ko ci wetu jeune garçon bi mu déglu face A bi ba mu jeex mu tourné ko

ñu ne ko lu waral li mu ni turu yàlla bi mu doon zikar énergie bi si doon dégagé moo dem ba bouché neer yi waaw te fallait que ñu dégagé ko par la musique par une musique mais une pas n'importe quelle musique mais une musique suave cay Cheikh Tidiane si kenn xamul lu mu doon waaw mu raw sëriñ si waaw alors pour wax la ne ñoom balaa ñoo dem si maqaadiri dem si asbaab yi boo gisee mu ne af naytu waaw moom Serigne Cheikh Tidiane si af naytu asbaabal xayaati waaye diraasatan waaw bu noonu wilaayatan nga yëg ne xëñ na turandoo ma tax bu noonu wiraasatan nga yëg ne xëñ na lu mu donn la waaye diraasatan lu ma ñas par effort ba xëy incarné limu mu incarné boo gisee yonente yi di ko ñee moom Serigne Cheikh Tidiane di laajte kii ki kala parce que yonente yi yàlla daf leen informé à travers maqadir yi euh, information rek lañu jot mom nak mu def yitté mom Serigne Cheikh Tidiane si waxna leen ne turondom na da ko andil cëru yàlla ni ko sa cëra ngoog mu ne delol mako mu ne ko ndax lan effort bi ma daj pour indi la sa cër mu ne ko waaw boo ma ko indilee du ma xam li ne si yoon wi delloo ko ma jëlilil ko sama bopp pour ma mën a xam li xew si yoon bu ëllëgee góor yàlla guy nettali man itam Cheikh Tidiane si ma am lu ma nettali te ku ne xam na ne Cheikh na Ahmada Tidiane fa mu ne waaye mu góor góorlu moom sëriñ Cheikh si asbaab yi di dox di waaxu di def effort ba ni tël fekk turandoom Abil Abbas si Ahmada Tidiane mu toog waaw ni ko foo jaar. mu ne ko wa himmati wa rahbati wa shawq fiika wa himmati fiika wa rahbati fiika bi majaahilil ayaati sama cofeel si yow wa wa shawq sama cofeel si yow fiika si yow wa himmati ak sama yitte waaw fiika si yow wa rahbati ak sama sama dogu waaw sama motivation fiika si yow ñett yi bi ma jaahilil ayaati xat-xaat daani ñoo ma tëli ba mu yëg si si yow kon nga gis ne toujours ñoom si asbaab yi la ñuy dellu alors kon risaala gi daal mu ngi noonu yàlla nag ne yonent bi dama la yónni parce que yonent bu ma mës a yónni am nga temps déterminé am place déterminé waaye yow Muhammad dama la yónni sur tous les hommes, et dans tous les temps et dans tous les espaces. Temps espace tënkul nit tënkul wa ma rahmatan lil alamina alam bi yëpp dugg monde yi alam bi nabatat wal jamadat le monde animal wala bok la race humaine la race animale euh, animal la race végétale yep dugg waaw àllam bi yëpp kenn desul yow Muhammad kenn ku ne yónni naa la si ka fatan lin nasi waaw nit ñëpp dugg au delà des différences de race de langue d'ethnie waaw lepp nit waaw Serigne Cheikh ay wax de dama lay yónni ci nit ñëpp l'homme a dama la à tous les hommes et à tout l'homme à tous les hommes race du la ethnie du espace du la à tout l'homme l'homme dans toutes ses dimensions Il y a une dimension mu sa dimension émotionnelle sa dimension euh, intellectuelle sa dimension physico célébrale sa dimension waaw a tuulam kaafatan lin yi kon nga gis ne risaalo yonent bi sallallahu alayhi wa ah, bàyyiwul fen ñu laaj nag Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu boroom gàmmu gi ndax yàlla li mu yónni yonent bi eh, doom la ñu ne doom nag day am ndey am baay ñu laaj Seydil Xaaji Malik kan mooy ndeyi doom ji ak kan mooy bàyyi doom ji Seydil Xaaji Malik nag daldi ne nag renvoyé la sa xilaasu zahab sa ris buntu risaala ga wallahu arsalahoo lil aalamiina lan huddan ak lan wa kañ ismada jëslun bilaa wahami waaw seen xaaji malik waaw mu ne wallaahu naka yàlla arsala yónni na hoo mooy kan sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam hoo ji comme niñ ko waxee prono personnel la waaw wallaahu yàlla arsala yónni na hoo sayduna muhammad sallallahu alayhi wa waaw ma demam kon seyduna muhammad mooy baay bi waaw lan huddan kon mooy ndeyi doom ji te muy njub waaw doom ji lan la rahmatan te muy yërmande kañ la ko jur ismada waaw ba mu majeure doo ne ba mu wóyee waaw ba mu majeure parce que boo nee ba mu wóyee kon day dellu si événement yi te tay la la Serigne Cheikh waxoon du fi jóg waaw isma ba mu mesurer te mesure nag mën nga mesure biologiquement pour jur doom ñu ne mesure nga signes yi war a daje si yow bu dee góor wala bu dee jigéen pour ñi pour ñu ne diw mat na nga xam ne liñ naan ku ne la jabar a ngi nga ne doom a ngi nii mesure googu taxul muy wax kooku c'est biologique waaw mais isma ba mu mesurer spirituellement waaw parce que mesure spirituelle asamaan d'accord ne majeur nga mi ngi am à lage de quarante ans moo tax yàlla mësul yónni benn yonent te amul quarante ans à l'exception de Isa ibnu Mariama te booba yàlla day wane volonté waaw mu ne kon ismada ba mu majeure la koy firndeel jëslun waaw jëslun jiim trois la rasin di sept laam di trente

tous les temps sur tous les espaces de sur tous les hommes tous les hommes au-delà des différences de race au-delà des différences de langue au-delà des différences d'ethnie au-delà des différences tous les hommes la race blanche la race noire la race zone la race ñep dugg à tous les hommes Alam bi yep, ñetti monde yi ko composé le monde animal le monde végétal le monde euh, humain kon ñett yep moy alam bi Waye wa kaafatan linnaasi lepp nit dama la yonni si nit ñep à tous les hommes waye à tout l'homme l'homme dans toutes ses dimensions. Sa dimension intellectuelle, sa dimension émotionnelle, sa dimension physico-cérébrale. waaw kaafatal li naa kon yow espace tënku la temps tënku la waaw ñu ne Maodo nag waaw li yàlla lan la yónni yonent bi su noonu mu ne huddan waaw moo ñu defal la ko muy rappel constant si Fatiha heure boo jullee nga di ko jàng si waxtu yep, waaw nga nan ihdina siratal mustaqima kok moy rappel constant bi moy diplôme bi nga ci décrocher ihdina siratal mustaqima kok diplôme na diplôme nak kuko tudd tudd établissement établissement bi balla mu yebal la si jawharatul kamal ne la siratika tamil asham waaw ku tudd diplôme tudd établissement xanaa di nga am professeur bu la ca encadré ñu ne professeur bi kan la mu yabal la ca salaatul fatiha te mooy alhaadi waaw alhaadi waaw ah ila siratikal mustaqimi waaw mooy professeur bi ba tey génnul yonent bi waaw ñu ne waaw ku am bëgg diplôme am professeur am établissement xanaa di nga am programme waaw ñu ne lii programme bi ñu renvoyé la sa suratul fatkh nga xamne moy mooy page facebook gu bi inna fatakhna laka fathan mubinan li yaghfir laka allah ma tahaddama min zanbika wa ma taaqara wa yutimma nixmatuhu alayka wa yahdiyaka waaw kay wa yahdiyaka siratan mustaximan kon koku moy programme bi comme nak waxtu wi jeexna